Bienvenue sur Salam Vision. Mohamed. Avant tout ça, je veux le monde, salam alaikum. Et je vais saluer toute la famille, les familles de Mbouk. Et je vais saluer toute la famille. La fille de Mbouk. papa un papa honoré. salue tout le monde entier. Et je salue tous les gens qui sont ici aujourd'hui, qui se reposent en paix. La vie, c'est comme ça. Quand viens, un jour tu vas partir. La mort, il ne peut rien c'est Dieu qui peut faire. Mais si quelqu'un est mort, il a besoin de quoi La bénédiction et la prière, et il faut venir le voir. L'exemple, c'est comme si tu as le téléphone. Si les gens ne pas appelé, tu ne peux pas les appeler. Mais si tu as mis crédit dedans, tu peux les appeler. Ça veut dire que si tu as trouvé un bon papa, Même si tu as trouvé un mauvais papa, il faut pas oublier tes familles. Tu veux trouver un bon ami. Tu peux trouver quelqu'un qui peut t'aider dans la vie. Mais il faut pas oublier ton famille. On ne peut payer une famille. Même si tu as un il faut pas oublier celui qui sont déjà morts. Sauf si tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas les moyens, aller voir là où il la mort. Mais si tu as la moyen, il faut faire tout possible. Il faut penser à tes gens. Ça, c'est mon papa qui s'appelle Sirimbo. Ça, c'est ma grand-sœur qui s'appelle Kia Aydrambo. Papa, là, il a fait tout à ses enfants. Wallahi, c'est nous qui peut dire papa il nous doit, mais nous on ne doit pas notre papa. Mais aujourd'hui, il est là, il n'a qu'à savoir que nous on pense à lui, ni à la maison, ni dehors. Ça c'est la maison de papa, ça c'est la maison de Kia Aydara. Quand tu veux venir voir un mort là, mhm. tu n'as pas venu voir un mort. Tu es venu regarder. Le jour que toi, tu vas venir coucher ici. Mhm. Parce que la mort même va dire, ah, nous, on était venus ici avant. Mhm. Donc toi aussi, tu es venu nous Donc tu vas venir aujourd'hui, mais tu vas venir demain. Personne ne sait Avant, tu cours à cause de la vie. il faut courir les jours que dormir. Pourquoi j'ai fait ça Pour montrer à les gens et pour montrer à le monde la mort c'est la réalité. C'est pour cela à Papa quelqu'un qui est mort, Wallahi billahi, si tu es venu demander cœur ouvert, mhm. Dieu va réussir ton problème. Mhm. Mais il a les façons de demander. Mhm. Tu vas venir dire, Dieu, voilà mon père qui dort aujourd'hui. Il me voit, mais c'est moi qui ne le vois pas. Il m'attend, mais c'est moi qui l'en attends pas. Mais Dieu, là mon père il est, il faut le mettre dans paradis. Et il faut lui pardonner ce qui est fait entre nous et lui. Et nous, on lui pardonne. Dieu, à cause de notre papa, nous, il faut nous donner longue vie. Dieu, à cause de notre papa, il faut nous aider dans la vie. Dieu, à cause de notre papa, il faut nous protéger dans la vie. C'est comme on dit. Je me parler un peu en Me foli di Bamako n'a namini bɛɛ lajɛlen ma. K'an faw fo, k'an baw fo, k'an kɔrɔkɛw fo, k'an dɔgɔninw fo, k'an sinjiw fo, k'an fa musow bɛɛ fo. Nin an ka cɛkɔrɔba dayɔrɔ ye. n'an b'a f'a ko sidi bup nin y'an balimamuso ye n'an b'a f'a ma ko kiya hayidara bup ala y'a garijɛgɛ bɛɛ senegali ma ka tila k'a dayɔrɔ bɛɛ senegali ma an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na se tɛ foyi ta anw ye dugawu kɛli kɔ ka ɲini ala subahana watala fɛ an ka cɛkɔrɔba a ye hɛrɛ min k'anw ye walahi bilahi talahi an t'a sara sɔrɔ denni la ale de ka juru ba anw na mɛ an ka juru t'an ka cɛkɔrɔba la an kɔrɔmuso min dalen filɛ nin balimaya la walahi bilahi talahi an ka juru t'an balimamuso la an bɛ se k'a fɔ an balimamuso de ka juru b'an na sabula a taara ka an minnu to yan an k'an se kɛ duwawu ni sarakati la ka ɲini masa aramani fɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ ala ka kɛ suw barika kama ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ yen kɛrɛnkɛrɛnya gɛlɛya min bɛ mali kan n ɲini alaw subahana wataala fɛ ala ka kɛ kira kɛmɛ saba tan saba bonya kama ala ka kɛ walijuw bonya barika kama ala ka kɛ kutubu bonya barika kama ala ka kɛ juma ye lahɔrɔma bonya barika kama ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ yen yarabiyama ala ye kira kanu cogo min n y'a ɲini masara mani fɛ ala ka mali kanu tɛ k'a bɔ ni dingɛ in kɔnɔ ala ka jamanaw bɛɛ kanu tɛ k'u bɔ dingɛ in kɔnɔ k'a ɲini masara mani fɛ bi juma ye lahɔrɔma kosɔn maa o maa de ko k'e bɛ nin da mali in kan walahi se tɛ su ye ka kuma dɛ ni su ma se ka kuma ɲɛnɛma fɛ yara biyama mali jugu ala k'u bin dingɛ kɔnɔ ni su ma se ka kuma ɲɛnɛma fɛ maa de bɛ fɛ ka janfa ta ka mali sɛgɛrɛ yara biyama ala k'a tigi bi janfa kɔlɔn kɔnɔ ni su ma se ka kuma ɲɛnɛma fɛ yara biyama maa de ko kɛ fɛ ka mali in dafiri yara biyama ni se de b'i ala k'i ka se ban ni fanga de b'i la ala k'i ka fanga ban ni dɔɔni de b'i la ala k'i ka dɔɔni ban ni nafolo de b'i bolo ala k'i ka nafolo ban ni hakili de ka di ala ka fa don i la yarabiya ma o se bɛ ala subana watala ye ala ko k'a ka alaya kama je me profite encore pour parler un wolof je dis salamu alaikum à tout le monde maa ngi nuyu waa sénégalais yëpp maa ngi jégalu ñoom yëpp papa Talla nekk ni xartikiya kii turandoo sama papa la Sidi may maara kikiyaay dara mbubb kii tam sunu xarit la ak daam tey kii a dafa kontaan bon moo tax ma ne sisan bokk dafa dee bul ko fàtte grand sisan bokk dafa dee bul ko fàtte ak lu bon bon ak lu mu baax baax sisan bokk dafa dee billaay soo ko fàtte soo dee nit yi dina la fàtte. soo gisitee. man maa ngi ñëw ziara sama pap ak sama mag. parce que sama mag moo commencé. sama mag xaalis lu ne su dafa am. dafa ko dugg ci Serigne Babacar Sy. ndeysaan ndeysaan. musu gisi Serigne Babacar Sy de. mais dafa ko dégg rek. fonk ko. Mhm. jëli ko mhm. ak ñaar loxo. maa ñaani yàlla. problème problème dafa amu ci àdduna yi mhm, mhm, mhm. yàlla dina def ngir Serigne Babacar Sy ngara dina def ngir ak nit lu baax ñoom dafa nekk te de fii nit ku ne soo gis gis fii ñoom defu dara ci yàlla ñun tam ñun mi ngi fii ñun jox dara yàlla dëgg la bul mbay sa mbokk xaalis bulu bay sam bokk parce que dafa dof bulu bay sam bokk parce que dafa soxor bulu bay sam bokk parce que ñamu yaa ñeme yàlla yàlla nee ñaar nit soo def da nga boole ci benn papa ou bien ñaar nit même si yéen dafa ci benn yaay bulu bay sam bokk yàlla nee nga dimbale sam bokk ban jour boobu dee tey ñunu dinaa commencé liggéey pour sunu pap parce que su nit dafa dee booba boobu nga commencé wut sa barka billaahi man lu ne su ma ko ci sama xol fii ci kanam sama pap kanam sama mag man xam na yàlla dina ma defaral allahumma amin grand soo gis tey gars mi ngi wax Maysa gars yi mi ngi wax Kia. Mhm. ñun fooy ak sunu mbokk de. Mhm. ñun fooy ak sunu mbokk. Mhm. ñun fooy ak sunu pap ñun fooy ak sunu yaay. nit ku ne soo fooy ak yaay. da fooy sa aduna. dëgg ku ne soo fooy ak sa da nga foy sa aduna billahi tallahi nit ku ne am xaalis nga feta sa pap nga am xaalis nga fàtte sa yaay billahi tallahi ma yow nga nekk milliardaire mais benn jour yu daan yu xamul loo ko daan wallahi bul jël sa xaalis nga nekk rew si sa pap bul am xaalis nga fàtte sa mbokk yi xaalis dina jeex aduna du jeex tey dama ñëw fii ma ne sama pap ñun yëpp defa ko baal sama mag ñun yëpp defa ko baal ñun tam ñun baal na ko bu baax a baax ay problème yëpp defa nekk ci àdduna yi ma ngi ñaani yàlla yàlla dafa ngiri lu lu ne soo bugg mhm. billaahi grand su yu amoo mhm. nga wax yàlla mhm. yàlla dina la may lu tax gaay dafa gëm Serigne Touba parce que dafa def lu baax lu tax gaay dafa gëm Serigne Babacar Sy parce que ñoom dafa ko gëm yàlla ne soo gëm nit ku ne dina la dimbali ngir kook est-ce yaa ngi comprendre mhm. maa ngi ñaan yàlla yàlla joko ardina firdaws sama waaju yi ak nit ku ne mi ngi fii soo ñëw seetaan mhm. sufu lu ne sa tàng mi dina teg ci kaw mhm. ñoom mi ngi la ñaan ba nga yegg sa kër xeer ku ne yaa ngi taxawal ci kaw kooku dina la ñaan ba nga sa kër garabu ku ne yaa ngi jaar yàlla garabu yóbbu yëpp dina la ñaan ba nga yegg sa kër doomu adama bulu fàtte ku dee soo yo munu ñëw xool sa ku dee nga génne ay sara garan lu ma bëgg wax nit tey sama paak mi ngi fii dafa sula kan kenn kenn kenn ese dafa sulaa ki jabarami ese dafa sulaa ka rakami ese dafa sulaa ki domomi sulaa moom kese moo tëdd fi tey sama pap nene busu bu su yàlla dafa bëgg nit yàlla dama la ñaan nga bay ma nga bay sama doom nga jël ma. allahu akbar chaque jour. sama papa dina gaañ. Mhm. dafa woo doomam yëpp. Mhm. dafa woo arakam yëpp. Mhm. dafa woo jabaram yëpp. ba moo tax ba léegi kenn gémul siri dafa dee. wala noonu la deme kiyatam. kara. Kya def na lu ne papam def na lu ne yaayam moom moo wax papam ñëw senegal man dina la toppatoo ba jour nga dee yàlla doog na ko noonu <laughs> ne papam mane ne bàyyi bi nga ñëw nga ñëw toog loo soxla ci àdduna man dina la may papa musu jooy ci kanam kiya sama yaay musu jooy ci kanam kiya sama papa def na lu ne billahi tallahi doomam man mun naa wax ay doomam waroon naa fay ko tey mhm. mais moom du fay doomam tey mhm, mhm, wàccoon soo gis ñun dafa nekk fii tey mhm. si ñun dafa def lu baax mhm. moom dina am bosom mhm. su ñun dafa def lu bon bu ñoom dina am moom dina amu bosom parce que yàlla nee ne su jox doom soo juuli tànk sa doom yi juuliw yow sa bosu dafa des est ce que yaa ngi comprendre yàlla nene même soo juli sa jabara julu yo sa julu bi yegul est ce que parce que yàlla nee ne nit ku ne so am doom avant nga dee il nga jël sa doom yi nga bay ci yoon bu baax sinon su sa doom yi dafa def lu bon si sa ginnaaw nga am sa boos est-ce que su sa doom dafa def lu baax nga am sa ginnaaw parce que ñaan ku ne su ñun dafa def sunu paap loolu la moom dafa soxla. Ah? si bu yaa. est-ce que yaa ngi comprendre. lu ne suñu dafa def tey suñu pap mhm. yàlla doog naa ko may. suñu dafa def ko bon tam. Mhm. yàlla dina ko may. Mhm. bon moo tax nit ku ne. nit ku ne. noo def dara. avant nga dee mhm. nga jubóoli sa doom yi mhm, mhm, nit ku soo def dara avant nga dee nga jubóoli sa jabar yi nit ku ne soo def dara nga def tout possible sa mbokk yi dina dugg ci benn buntu sinon soo dee sa ginnaaw dina yàq yow doo nekk ak bàmmeel doo nekk ak yàlla mais siri bi yaa def na ko yëpp doomam ku ko faate yaa def sa bopp ku ko xam ko yaa def sa bopp est-ce que yaa ngi comprendre ma ngi Yaasin woo naa ko léegi-léegi nee na dafa génne dafa dem ci rendez moom moo nekk fii tout près magam la bàjjen Yaasin chaque vendredi su man am ma jot pour ñëw moom dina ñëw mhm. seet si rakam mhm. nee na rakam def na ko lu su soxla dërëm. Mhm. arakam dina ko dimbale. ndeysaan su defa soxla arakam dina ko dimbale. ndeysaan magam tam mi ngi foofu James Mboup. Mhm. moom mi ngi Saint-Louis. Mhm. tout temps mi ngi xalaat arakam bi. est-ce que yaa ngi tam mi ngi foofu. Kébé tam mi ngi si yaa ngi comprend njakam mhm. bupp tam mi ngi foofu mhm. ay jabaram yëpp mi ngi foofu mhm. ñoom yëpp mi ngi parce que man ne su wax ci Boss Kia rek man dina jooy ndeysaan ndeysaan ndeysaan ci kamin papam dee bon tam dafa ko def ba papam dafa dee même papam moment dafa dee dafa wàcc kamin fii Kia dina ñëw taxawal toog ñaanan papam teeta moom dafa suul fii est-ce que te itam moom dafa suul fii. yàlla moo xam dëgg. wallaahi kenn xamu dëgg. Mhm. Mhm. Mhm. yàlla. grand yàlla moo xam dëgg. kenn xamu dëgg. mais lu ma jaaxal ci àdduna. kiya yaa ko jënd parfum ba pare. jënd yére yi ba pare. moom ma dafa ko jënd même def même trois jours dafa gaañ. est-ce que yaa ngi comprendre. Mm-hmm. tey dama ñëpp woon. Mm-hmm. ay xaritu kiya. Mm-hmm. ay arakam kiya. ay magam kiya. ay yaay kiya. ay pap kiya. tey kiya moo nekk ni su yàlla def su man nekkuma fii. Mhm. kiyaa mhm. mhm. moo nekk nii de ci waawan man xam ma kañ man dina dee su fekkee ne man nekkuma fi tey Sirbuya moo nekk nii ne man xam ma kañ man dina dee maa ngi ñaan yàlla yàlla jox ma wërsëg lu bare maa ngi ñaan yàlla yàlla jox ma gudd ak fan. amiin yaa rabbi amiin amiin amiin amiin allahumma amiin. ma ñu toppatoo sama mbokk yi. amiin yaa rabbi amiin allahumma amiin. mais bu su beneen su nekkuma fii. Mhm. ay mbokki kiya kiya mi ngi nii. Mhm. Mhm. ay mbokki siri kiya siri mi ngi nii. mi ngi ci Tiwaawan. même sooy yow ki a tey nga wax moom dina suul senegal moom dina la wax du dégg wallaahi wallaahi wallaahi mais lu ne yàlla defa ko bindi kenn mënu ko fase ko wallaahi dina profité ci lool maa ngi ñaan waa Sénégal yëpp maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp maa ngi ñaan yàlla def Sénégal bi dina am jaam maa ngi ñaani yàlla coupe d'Afrique bi ñun dafa dem yàlla moo xam kan bi dina gagné maa ngi ñaani yàlla yàlla def ko tey ñu am coupe bi maa ngi ñaani yàlla tam yàlla def ñu am coupe bi maa ngi ñaani yàlla yàlla def ñu am coupe bi Papa Talla kenn ku ne. Mhm. yaa ngi dem seetaan coupe bi. Mhm. maa ngi adressé. Mhm. ay supporters sénégalais. nga moytu. parce que affaire coupe bi ma ne mun bugguma wax. mais loo gis nga wax. dëgg la. dina profiter wax. même si ñoom dafa Mm-hmm. su ñoom dafa san deserti ndox bi mm-hmm. il faut pas ñoom dina laal mm-hmm. kenn ku ne nga surveiller ndox yi est-ce que yaa ngi lekk nu ne si ñoom mi ngi lekk ñoom dina contrôler lekk oto bi si ñoom dinaa dugg ci oto bi avant dugu il faut ñu contrôler oto bi Papa Talla man maa la wax si Coupe d'Afrique bi dafa dee nga dëkk Algérie dafa dee nga bindi bopp tam lu ma wax nga bindi du ma du ma ñëw wax benn wax. Mhm. du def. Mhm. du ma wax wax bi dafa ma neex. Mhm. man xam ma lool. lu ma wax. loolu la dina nekk. incha yaa comprendre. ay supporters sénégalais. su match bi dafa jeex. kenn ku nga jël. sa tàng nang nang nga dem sa kër nga toog xaar gaay loolu la xam si yaa ngi comprendre ay joueurs itam kenn ku ne nga moytu si ñoom dafa waxtaan seen diggante jubóo seen diggante ñoom dina am victoire bi est-ce que mm-hmm. mais il faut pas que kenn ku ne dina wax il faut que man dina am tur. Mm-hmm. si ñoom dafa def lool rek. Mm-hmm. ñoom du ko gagné. boole seen bopp moo leen dimbali. kenn ku ne. soo am. su yow mënu dugg jox su dafa ko dugg yéen yëpp seen tur moo nekk ci biir. la. grand su ñoom dafa dégg loolu. ngir nit yi day dafa nekk fii. man xam na coupe dina ñëw Sénégal. incha allah ay supporters sénégalais. Mhm. bul dem seetaan match yi. Mhm. Burkina contre Cameroun. Mhm. wax naa de. man maa la wax demu Papa Talla. ma ne su dafa jàpp bant. ñoom dina dóor démb. wax naa la. ma ne su Cameroun su dafa def lu ne. yi dina ko dóor. wax naa la. démb ci heure bii ko wax. Mm-hmm. mais man dina am ku dee. Mm-hmm. man tam dina am carton rouge. Mm-hmm. man duma wax sama bopp nii de. man xam ma lool. lay wax lool. wallaay. Sénégalais la paysan ko man africain la. la. lu ma gis. ci problème su ma gis ci Sénégal. man dinaa ko wax. duma ma xool ginnaaw wax ma kenn jox ma xaalis yàlla rek la tax parce que senegal Sénégal dafa sunu mag bi ak sunu pap sunu jaar ci loolu rek wax ba léegi Macky Sall xool Sénégal Macky Sall Mali Macky yo ak Mali yëpp benn la Macky Sall Mali sa rakk yi moo nekk foofu sa doom yi moo nekk foofu sa mbokk yi moo nekk foofu Macky Sall ma ngi laa ñaan ngir yàlla nga xool sa doom yi duma sono ci wax bi dina la wax su fekkee ne sa sëriñ ni waxul la Macky moytu ma ne loolu nga moytu ko sa oto nga moytu ko mhm. sa garde corps mhm. nga moytu ko mhm. man dina la wax de dooma ma jox dërëm dooma jox dara mais dina la wax nga moytu sa bopp Macky Sall xoolal sénégalais yi dina ñëw de Macky Sall billaahi tallaahi day dina ñëw nit ku ne soo def cent ans mhm. dee dina ñëw mhm. busu bu soo dee mhm. yàlla dina la laaj loo def ak sa mbokk yi noo mag sa yàlla dina la laaj loola man dama la wax man sa doom la yow sama maam na dina la wax lu ne Macky Sall yàlla dina la laaj de Macky Sall yàlla dina la laaj Mhm. jour boobu. Mhm. amu garde corps de. Mhm. ku la wax dama la bëgg dama jour boobu ñoom nekku foofu de. ñun président IBK fu mu nekk tey. ci kenn doomu ak moom. nit ku ne dafa wax dama soxla dama bëgg IBK. kenn doomu ak IBK. Mhm. yàlla dina la laaj par benn par benn. Mhm. Macky Sall sénégalais dafa bare de. Mhm. kay yu dina pare wax ak yàlla. Macky Sall kan pare ak yàlla. Macky Sall dama bugg la wax benn affaire xooloo xale yi. la mort va venir. tu vas répondre. Macky Sall avant les jours là il faut regarder derrière. Macky Sall Mali Sénégal c'est même chose. Il y a beaucoup de Sénégalais au Mali. y a beaucoup de Maliens au Sénégal. Macky le jour que la mort va venir Dieu va demander tout. Le jour du jugement Macky Sall ce n'est pas facile. Mmh. Je suis ton petit-fils. Je suis ton fils. Je ne fatigue jamais à te donner conseil en tant qu'un père. Parce que tu ne me donnes pas l'argent. Tu ne me donnes pas à manger. Mais tu me donnes à vivre. Parce que si Sénégal a problème, je peux avoir problème. Si Sénégal n'a pas problème, je ne peux pas avoir problème. Macky il faut savoir, il y a un pouvoir qui est en haut, qui nous voit. Magistral, il faut savoir, il y a une autre personne qui nous a beaucoup de pouvoir. si veut, il peut prendre tous une seule seconde, mais il ne fait pas Il nous laisse chacun faire ce qu'il veut. Magistral, je te demande pardon. Regarde Mali. Mm je te donne conseil. tout ce que tu manges dans la vie, il faut bien contrôler. Makissa, je te donne conseil. Avant de rentrer dans il faut bien contrôler. Makissa, je te donne conseil. Là où il faut bien contrôler. Makissa, je te donne conseil. L'avion que tu rentres, il faut faire attention. Makissa, il un grand rayon. Ça ne peut pas durer. Il faut savoir manger là il faut savoir boire. Mm-hmm. Quant à moi, il faut partir avec ton manger. Mm-hmm. Quant à moi, mm-hmm. il faut partir avec ton lot. Quant à moi, tu fais très attention. Maxa, ce que je si tu n'as fait attention, ça va venir. Je te si tu n'as fait attention, on va t'empoisonner. C'est moi qui t'a Si tu veux, faut demander ton marabout. il va dire la vérité, il dire ce que le petit a dit, il n'a pas menti. Dans tout ça, je remercie tout le monde entier. Mm je suis venu voir ma grand-sœur et en temps, je me profite pour ça. Que Dieu nous donne longue vie, que Dieu nous donne beaucoup de chance. Et je veux que chacun n'a qu'à de dire ton vœu. à Dieu et terminer à les gens qui sont morts. Je sais bien que Dieu va nous attendre aujourd'hui. Parce que on est venu faire visite, ce n'est pas une visite pour rien. On est venu faire une visite, ce n'est pas une visite à cause de l'argent. Ça, c'est mon père. Un papa qui nous a fait tout. Je ne peux pas oublier mon père mm -hmm. jusqu'à le jour de ma mort. Papa Tala, mon père m'a donné tout. Mhm. Moi, j'ai mangé millions en ce je ne connais pas que je suis devenu marabout. Mhm. Papa Tala, mon père m'a montré tout. J'ai voyagé en ce je ne connais pas que je vais devenir marabout. Mhm. Mon papa Tala, je ne s'amuse pas avec lui là. Mon père, c'est mon cœur. Mm -hmm. Ma mère, c'est mon cœur. Mhm. Papa Tala, moi, je ne savais pas avec mes parents. Tout ce que je gagne dans la vie, je papa et ma mère. Mm -hmm. C'est ça que j'ai demandé à mhm. Je vais répéter encore. Mhm. J'ai dit à Dieu, tout ce que je vais gagner, que je ne peux pas donner moi, avec mes familles, on ne peut pas manger ensemble. Je, si c'était que je vais devenir milliardaire, que moi avec mes parents, on va s'éloigner. Je ne veux plus milliard là. Mm si je veux devenir millionnaire, je ne peux manger avec mes parents. Je, je ne plus devenir millionnaire. Papa Tala, Wallahi, celui qui il faut laisser ton frère. Il faut suivre quelqu'un qui a l'argent. Il t'a Le jour que la mort va venir dans ta maison, c'est le jour que tu vas savoir. Ah, que même sans, il ne ment pas. Mm -hmm. Papa était combien de personnes Combien de personnes viennent visiter aujourd'hui Qui a été avec combien de personnes Combien de personnes viennent les visiter aujourd'hui Est-ce qu'on peut obliger et pour venir mm-hmm. Mais moi, on peut me obliger. Je suis son frère. Je suis son fils.

on dit tout ce qu'on veut dans notre cœur mhm. et on clôture avec ça, mhm. on donne Dieu, Dieu donne ça notre papa, mhm. avec euh, notre grand sœur, avec tous les gens qui sont dans l'armère ici. Papa Tala, c'est notre tombeau. Sûr. Tout ça là, c'est notre espace. je suis en Parmi nous, la personne ne sait pas que son tour est arrivé. Dieu seul qui sait. Mais on demande Dieu que Dieu nous donne longue vie. et on va s'asseoir. ñu sant yàlla. Mm-hmm. julliwaat ci yonent bi. Mm-hmm. kenn ku ne def fàtiya mm-hmm. def def salaatu alam nabi mhm. ñu ñaanal suñu waay dawlu yi nga xam ne ñoo tëdd fii mhm. waaye ñaan ni tamit mhm. ci seen barke ñoom ak yërmande yàlla suñu borom ñoom itam ñu ñaanal ñu ba réew mi am jàmm réew mi am tawféex réew mi itam mucc ci lépp ndax xew-xew yi am ci àdduna dafa bëri li mu gis lépp sañu ko wax waaye li mu ci mën a wax rek loolu la wax fi mu toll nii li ngeen dégg mu wax fii yëpp boobaak léegi mooy li nga xam ne loolu la sañ a wax mën koo wax lool la junj wax ko mhm, mhm. waaye li ci des lépp daal mënu koo wax sañu koo wax mhm, kon ñu bokk defandoo ñaan bi ñaanal suñu waay daw la yi fi tëdd waaye ñaan leen ñoom itam ci barkeb yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam barkeb mag ñi ñoom itam ñu ñaanal ñu ba réew mi am jàmm boo leen bëgg yi ak mébét yeeg yéene yëpp suñu borom defal ñu ci tawféex te ñu bokk ñëpp ci daraja yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam Cyril, il faut t'asseoir, on va, bismillah rahman rahim malik yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata al-mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad as-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu as-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu as-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad اللهم صل على سيدنا محمد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 آمين يا رب العالمين آمين يا رب صل على سيدنا محمد النبي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحان آمين يا رب العالمين سلام على المرسلين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين bismillahi rahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin bismillahi rahmani rahim qul huwallahu ahad allahu samad walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali muhammad wa sallim bienvenue sur Salam Vision.